ngi lay nuyu docteur Abdoul Aziz Yaya Jammeh. hay maa ngi lay fay di laa nuyu di sargal ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan ci télé yi ñu ñuy xuli di ñu xool ci télé yi ñu mun a waxtaan ak ñoom li nga xam ne moom mooy waxtaanu Gambia jëmale kanam Gambia. tey nag dañuy toog ci plateau télé bi nga dendandoo ak ki nga xam ne mooy sa opposant di Baro. ñu fas yéene ay question ngeen war cee tontu ginnaaw ba nga xamee ne campagne électorale bi jeex na élection moo ci des. première question bi ma lay posé mooy ñaata at nga def ci boppu gambi docteur Yaya Jammeh. def naa ñaar fukki at ak ñaar maa ngi jiite Gambia Gambia bi ma koy fekka ci Dakar bi nga xam ne moom la ñu nekka ñu am ñu ko yoroon ci loxo yoo xam ne dañu ko doon caaxaane te bi ma jëlee Gambia ci loxo yi ma ko jëlee ak si ma yóbbu Gambie képp ko doomu Gambia war nga xam ne man liggéey na ndax sondeel moo gënoon jar jamono yi yaa xam ne moom la ñu tolloon yi bu ñu ci tolloon ci jamono bi may jël Gàmbi kon kenn du wuyu téléphone ndax di nga xëy ba jant bi soo doo gis courant la moo tax Gambia yu bëri ñu ñu ñuy am courant soo dama ko lijjanti dugal ci monantali OMVS bi nga xam ne mooy organisation mise en valeur du franc Sénégal li ma liggéey li ma liggéey Gambie amul benn wuja boo xam ne mun ngaa taxaw wax ci ni lii doxul. Euh, docteur Abdou Aziz Yaya sama deuxième question sax mën naa ne commencé nga ci répondre mais du tee dinaa la ko laaj lan moo nar a nekk sa bilan ndax xam nañ ne jiitu réew boo xam ne nii mooy président sortant da nga war a am bilan lan mooy sa bilan lan nga mën a wax ne moom nga def Gambie ba tax Gambien yi war la falaat. hey soo ñëwee ci port Gambie ñoo di costé yii jugee Dubaï yii yii jóge Angleterre yii jóge Amérique ak jaamaani xoolal bato yi dañuy naka foofu di costante ndax marchandise yi ñu ngi duga daga yu bari daa di gada gambi maa góorgóorlu di soxat gambi ba gambi tola fii tey kon am na loo xam ne su ko liggéeyee ci gambi doomu gambi bu nekk war nga xam ne wax dëgg yàlla yaaya jaame liggéey na waaye bu fekkee ne li ma def yëpp dañ ko bëgg a xëpp kaani ne yaaya jaame liggéey loolu yaaya la yaaya der la li def ci Gàmbi mooy fexe naa ba télé bi ñuul xale yi ñu ngi jànga béykat yi ñu ngi bay tubaab yi ak naar yi ak chinois yi ñu ngi ñëw di gerte bi buñ ko jëndul sax ñu ngi koy bay di dunde kon li def Gàmbi ma xam naa lan la docteur docteur Abdoul Aziz Yaya Jammeh ñu bëggoon a xam lan moy sa relation ak Sénégal. hey dëkk bi nga xam ne mooy Sénégal man bi may ñoo di ko jël jot naa fekkat tuuti ngóoru Abdou Diouf ya nga may daga bobu ñom taxaw nañu taxaw boo xam tay suma su ma fula ak fayda ñom Sénégal xam na la nekkon jël Gambie taf ko ci Sénégal lolu maa ko bañ amna amna duma bi mu dama ko jappé kon suma papa. Ya me daga mo am na lu mo doxale man dama am na lu mo doxale ma fexé ba gamé ba da ñaka li nga xam ne ay ressources sam, ci diggante frontière da Sénégal ak Gàmbi nag bu fekkee na sa noon dafa wax ci sa bir daga ba to fa wax mu dem ci sa dëkkandoo dila fa xass ñoo mo leen jaba xarit man du len jappa kon ñoo xam ne dañuy dox suma digante ak ñoom mu bandang kon su bokanje ndax digante ñaari nit bu fekke dafa wara a bandang dafa wara melne su ne ndax su bokanje bu de gambi moy ñankatang senegal mo wara nek nekk bi soko jaxase ngam nga am suppo man dama nekk kanje nekk suppo ñoom bu buñu bu ak ñu amna am bokanje est-ce que est-ce que docteur Yakaroné, se sa Sénégal ngir Muritach, comme ko pont transgambienne bi bokk na ci li ko problème trop est-ce que vous un pont pour xam nous transporteur est-ce que vous gën à sa Sénégal. hey pont bu waree am dina Nous avons pont bi li nga ci gagné ñun duñu ko ci Nous Nous ñun bac bi nga nga jala di nous kan nous ñoom ñuy jugaa seen Dakar di jugaa suñu Dakar dañu war a fay est-ce que xamali ma Gambie gémmiñ la senegal mooy làmmiñ bi te boo amee gémmiñ amoo làmmiñ du mën a wax bu fekkee ne ñoom dañu yaakaar ne seen làmmiñ boobu bu ñu ko tee du ma mun a wax mun naa ñëpp mun naa te su ma ñëbee du tee dinaa lekk ba suur man Dakar kenn du ma wañaar su ma loxo man nekkuma président boo ne ay tubaab ñoo nekk sama ginnaaw man dama gëm suma boppa moo tax ma jël suma boppa def ko ci xaalis bi ci money bi président yaakaaroo conflit interethnique am soo déggee ma wax ko parce que da nga taxaw ne soose du mës a jiite Gambie est-ce que loolu loo war a wax la est-ce que yaakaaroo lu ma gëm la dama ko gëm ndax xam naa lu tax ma wax fi ma ko teg dama wax lu leer fu ma ko teg ndaa am na lu tax ma waaxoo bu ñu demee ba ci kanam dinañ ko xam ndax élection yi bu passé ba ma toogaat dinaa wax lu tax ñoom xam nañ ko sax mais dama ko gën a wax ba mu neex man ni ma tooge man suma ma toogaay taawaayu buur la taawaayu buur laa taawee de ku saca ñu daga sa loxo ku rey ma rey ku am ñaari tur ngana ka tenga na ka go suba ngana ka jigen tenga na ka jigen suba ngana ka go ngana ka sidda ka bi do ko nangu lo fuy nit def lo am na li saa ko bañ dama ko def da man dama taxawee taxawee yàlla man e, e buur la ñu gam ko ñu bañ ko gam understand to because man loolu laa gëm ku mu naari nga da ka bi nga gadaay e. so gadaayee na ya est-ce que ragaloo soose yi bañ laa votel hey because these people seen làkk dégg ko dégg suma lu ma lu daa ma am bu ñu balaa ma tax ñu ala mana tiara kare ala barka balaa ma ala barka ala mana tiara joolaa na barka le isa jantele jantala serala jantale moo ko mooso moo musole ila la musole banjul buruso ila bara trahna yonon ko jum jum docteur kila hela barka euh, monsieur euh, docteur Abdou Aziz Yaya Jammeh Bobo ba legi ñaar fukki at yaangi jité gambi mu nek république nga jéki jéki soudainement nga ne da ko bëgg def nguur royaume mais xana kon boobu ba legi li nga jité gambi kon doxul won yaangi ngi bëgg ci yoon bi maté maté suma né man ma taw taw bur ndax tuba Nyom ñom gamu wala suma bop ala gem lima wa fi mo am ba muy naari yambar mo ñoo def ko dara man maa def coup d'état te dara su ma neexee man nu ma neex mooy am gambi ku mu neexul nga jël yoon nga dem kon yambar yi baxeeku bi dem sama avant dernière question eh. monsieur Jammeh mooy lan moo tax adduna bi yëpp di voter ay carte wala ñuy voté ay urne yéen ngeen di voté ay EGAT lan moo waral loolu. xay gis nga tubaab yi ñoo taxawal ay karta waaye boo jëlee EGAT bul la bul bi dafa am suma photo am ñoom ñii seen foto waaye man ñii kenn xamee wu leen sax <laughs> gis nga bul bi dafa neex a compter soo dugale ci benn pax bu ñu demee ba jant soo ñu compter ndax carte yi mun naa am ay la man lu tubaab di duga du ma ci duga lii dara gënu koo leer ma ne bul hmm. ak karta ah. ak lu munti doon mm-hmm. man maa faluwaat ndax doomu Gambie man maa dee seen xol am na dañoo daw nag duñu ay Gambie ay Saalum Saalum ne waa Kaala gi rek loolu moo am fii ku fi nekk da ngay def li yaa bëgga munoo ko nga gëna sama question bu mujj docteur Abdoul Aziz Yaya Jammeh mooy avenir u Gambie lan moo nar nekk avenir u Gambie soo faluwaatee lan ngay proposer les Gambiens soo faluwaatee ndax boobu ba léegi jàmbat yi bari na joow yi bari na ñiy génn réew mi bari nañu lan ngay dig Gambiens yi. li may dig mooy xale yi nga xam ne ñoo nekk fi ñu bañ a xool ñi daaw génn. Gambie dinaa ko def Germany ah. danaa ko def London danaa ko def ah, danaa ko def America ah, daga yi nga xam ne ñii daw di dem di uti fii di daan doole mm-hmm. ñii nekk fii du ñu leen ñee maaloo bi dinaa koo wàññi xëy yaa ngi ma dëgga jigéen ñi dina leen jàppale góor ñi dina leen jàppale xale yi dina leen jàppale ku mu neex ku mu neex fale li ma moo am taawaayu buur laa taawee ku mu naxare nga go ku mu neex is down is is is is is is is is is lan ngay wax sa kaddu gu ak lan ngay wax baro mi nekk sa wet di sa adversaire yaa tudd turam man jabanaa ne aw ma koo xam ne dinaa jabanteeg moom ah mais kii sa opposant la hey dëkk bi soose du fi falu li ma wax moo am ndax li yàlla wax def ku sàcca ma daga solo ku rey ni ma rey la loolu la yàlla bëgga loolaa taxawee man man dama taxaw ci suuf kon taxawaayu buur ñi ko gëm ragal ko ñoo daw ndax affaire yàlla na affaire yàlla neexula jengu affaire yàlla neexula jengu de yàlla lu mu wax lii nga ya man lu ma def lool yàlla ko faj man maa taxawal yàlla fii élection yi mu neex mu naare man maa toogaat ndax maa maa nekk ci xolu laa di fay di la gërëm di la sant ci li nga xam ne ko di organiser pour askanu Gambie ak diaspora bi yëpp a xam li Gambien di dundoo ak laaj jëm ci tontu ci li nga xam ne moo ëpp seen boppa sama première question Baro mooy depuis kañ nga commencé def politique. hey loolu yàgg na politique dafa nekk loo xam ne dafa yàgg a sama xol waaye ni nga xam ne moom la ko yeneen daka yi ñu wër di doxalee. bu fekkone gambi dañu ko doxale ni kon tay ñu ngi wañi ba juróom-ñaari président suñu dakar waye yalla def na ki fi ñaka tok ki ko teggi ki tok batay mo moo dem ne dafay toog far dakar malay lacc lan mo la nakari ci gouvernement Yaya jame ak doxalinam ba tax yow ak ñi nga andal ngeen takku ne da ngeen ko fi jëlee tok fi. mom xamna na bu fekkone da fay def lu baax ñun duñu ko wujé bu doon man tundum la. maa xam ne kon ñi nga xam ne ñoo ko contre ñoo ko contre bëree wuñu waaye coalition bi nga xam ne juróom-ñaari parti ñoo lëkkaloo ñoom ñëpp ma boot leen am na lu leen naxare te ñi nga xam ne ñoom laa boot du maa leen ëpp a jànga du maa leen ëpp a xam du maa leen ëpp a fit waaye wóolu ak oyof bi nga xam ne moom nañu am ba wóolu ma xam nañ ne mun naa jàkkaarloog moom parce que bu wootee gaynde xam na gaynde moo jàkkaarloog gaynde te man ma tapet monsieur Baro ñu bëggoon la laaj ba tey comme coalition la te dafa bari woon ay opposants yow nga jiite leen naka nga def ak lan nga leen wax ba convaincre leen ba ñu jël la teg la seen kaw ñoom ñëpp nga jiitaleen leen lan. lii moo xew doomu Gambie yi nekk Gambie yëpp ak doomu Gambie yi nekk ci diaspora bi ñu ngi dund loo am ne tey ku ñu ko wax danga naan loolu xewi na ndax am na tubaab yi bi ñu fi ñëwee ci ay jamono jël suñu maam yi noot leen loolu la doomu Gambie yi di dula tey. binduñu ko ci tubaab de bu fekkee ne tubaab moo ñu koo teg sax ñu xam ne kon tubaab bi ba tey ñu ngi teg loxo ci dëkka nit ñu ñuul yi waaye ki ñu ko teg dafay doomu Gambi dëkka Gambi yaroo Gambi au lieu mu yaram ñu mu ñuy teg loo xam ne tubaab bi moo ñu ko doon teg ba tey kenn du am alal mu bàyyi la kenn sa liggéey mu bàyyi la ma ñëw kenn mënul liggéey Gambi loo xam ne da nga ko liggéey ñaxa ko sa boppa au lieu mu jàppale dafa dem def li nga def kon moom mu wujje la moom li may wax doomu Gàmbi xam nañ ci dara. Euh, euh, monsieur Baro ba tey defe naa loolu leer na waaye sama beneen question tamit day ñëwaat ba léegi lan la Gàmbi mën a xaar ci yow ak lan la Gàmbiens yi mën a xaar ci yow gannaaw ba nga xamante ne bii yaa ngi postuler candidature su fekkee fal nañ la lan la Gàmbi mën a xaar ci yow. kii kenn bu gàttu ko li may wax nga ko ma ne li may wax kii kenn bu gàttu ko kenn gëmatu ko kenn faale wuutu ko parce que ñun dañoo waa léegi xoolal ma ñëw xoolal li ci apa ñi nga am ne ñooy jëriñoo Gambie dëkk ñu Gambie ndax bu xoolee bu baax am na artistes yu bari waxu sax taw taxaw ñëw dañuy jógee senegal ñëw fii Gambie ñu teral leen ba nga xam ne ñooy gën a tekki doomu Gambie boo xam ne yaa ngi def li nga xam ne moom la ko di def te kenn du la xam waykat yi nekk a Gambie bu leen doon def kon waykat yi nga xam ne ñooy jógee senegal ak mbër yi ak ñi ñu dimbali kon Gambie du am waykat bu tardé benn rajo boo ci waxul waxu Yaya Jammeh soo waxee naka sulu noonu guddi gi doo fanaan benn tele boo ci waxul li Yaya Jammeh di liggéey ñu koy génne amul kenn ku sañ a woote réunion def ko sax ñu filmer la loolu amul Mauritanie Guinée Bissau Sénégal Cap-Vert Dakar yooyu yapa yapa am na démocratie mais Gambie mënut a am Yaya man dama la respecté bàyyi suma wax nga da waxoo daga man dama la respecté because dagu la bi ngay ya, wax yeb dagguma la bayima wa waaw d'accord yaa nga ma dega kon Gambie bu tardé mom bokana na ci liko tardé Gambie sénégalais da doon xey Monday Tuesday Friday Yang nga dega Juga def commerce dem Gambie né ya, lol ba jigéenu Sénégal yëpp ah. xam ne diggante Gambie ak Sénégal amna na liggéey dem di dubal sen économie ñun suñu économie di dem bi mu démé ba am lol dafa indi ay tolof tolof ci diggante bi ba léegi kenn ñëwatu. Baro soo faloo nan nga fas yéenee doxalee ak euh, Yaya Jammeh. hey <laughs> ah mii di ah. ko. ma ne boo faloo nan nga fas yéenee def Yaya Jammeh mii. yal na la yàlla dégg ñi ko dégg tamit nañu wax amiin amiin boobaa ñu ko ñun ay nit ñu démocrate nañu duñu ko dóor duñu ko toroxal waaye dinañu ko jaarale ci yoon mu wax ñu ñi nga xam ne dafa jël seen bakkan te tegu ko dara. yobu ko cour pénal international mo xamna na lu tax bëggul dugg foofu parce que xamna na li koy yoon waaye bés moo faloo nga xam ne doomu Gàmbi yëpp dinañu ñëw borom xam-xam yi docteur yi femme d'affaires yi businessman yi ñu gadawon ñëpp dinañ dellu ci ndax amuñu fenn fudul Gàmbi duñu dem Sénégal di fa jënd kër duñu dem Cap-Vert di fa jënd kër xam-xam biñu jaga war ko wan doomu gambi yi ñu soxaliku ñom ñëpp a dinañ ñëw bu bes gambi bu bes président bu bes Gambie bu man duma moromam waxuma ak yow de man duma moromam waxuma ak yow Gambia people Gambia people hey waxuma ak yow waxuma ak yow dëkk bu baax dëkk bu bees dëkk bu hey dëkk bu baax dëkk bu bees a ah, dëkk bu yow doo dara man ragaluma la hey dëkk bu président bu bees coalition bu bees he yow doo dara daka bu bees président bu bees yow doo dara yaya yow doo dara he daka bu bees Presidente é o Coalizão Abubé!